Abdou Aziz Loum RMT les républicains marginalisés de Touba t'ay dañu tase pour fustiger le comportement l'attitude du ministre Antoine Félix Diom, parce que de fait, ay missionnaires ñu ñëw fii ci dëkk bi écraser RMT bon la preuve qui est ak ñun ni membre la ci nous ñëw nañ fa wax ko waxu Antoine Felix Diom, mais ñu xamal ko ne ko structure euh, RMT structure la bo xamanteni dafa soudé famille ken kenn mënu ko kenn mënu kenn mënuñu écarter euh, ñaarel bi Antoine Felix Diom, lepp lu yaq ci APR rek rawatina fi ci Touba loxo Antoine Felix Diom ma nga fa parce que ben euh, dafa jël ay ay ay mission ay missionnaire indi len fi té ñoñu boy xol du compétence bi du niveau bi du dara ñaareel bi division bi nga xamante ni indi na ko ci ci ci ci ci parti bi raison pour la laquelle élection yi jàll maam taux bu faible bi nga xamante am nañ ko ndax ñu ci bëree bëree bëri dañu mer voté contre te Antoine jom moom moo ko waral dafay fekk mbooloo ñi nga xamante ni bërki démb ñoom ñoo doon saaga président de la république bërki démb lu ñaaw lu ne yàq nañ ko président de la république mu jël leen teg leen ci seen wet te ñooñu du ñu mas a bëgg président de la république ba fi ñu toll ni nii nii nii lépp lu yàqu ci dëkk bi parce que dañuy wax ci kaw di wax ci suuf lépp lu yàqu ci dëkk bi rek ñoom la donc ñu ngi attirer attention président de la république pour xamal ko ne ko Antoine Félix joom bu fekkente ni euh, moom jàpp na ne ku koy liggéeyal la mu ngi nax boppam ku koy yàqal la lépp loo xamante ni rek yàqu na fii ci tuubaa bon maintenant on est sax ci région bi ou bien au Sénégal boo xoolee loxo ministre Antoine Félix Diome mi ngi fi te lépp waralu ko lu intérêt boppam kon loolu ñu ngi ciy président de la République di comment xamal est ko nag RMT bi ni ni ni kuréel la goo xamante ni eh, non seulement kenn mënu ko kenn mënu ko mënu ko tas waaye nak man na ne li leen di naqari incha allah bu situation yi changé wul RMT gi mom mo leen koy teg ñaareel bi ñu ñëwaat bu loolu passé. ci attitude responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii parce que dañoo gis ne responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkal son excellence président Macky Sall fii ci Touba euh, di ko nax responsable yoo xamante ni du ñu dem kenn du feebar ban seeti la du ñu dem ngénte du ñu dem dëj te bépp xaalis wala lépp lu mën di doon privilège bu mën di ñëw président ñoom la ko jox bàyyi ñi nga ndaw ñi ak jigéen ñi nga xamante ni toujours ñoom ñoo nekk ci terrain bi di xeex Nous nak ñun dañu de ci lolu lolu en tout cas de toute façon ñun sommes nañu président Macky Sall wan ko lim fi doon du responsable mais ñun wa RMT gi la té inshallah lolu dina lèr ci officiel au mois de février inshallah, au mois de février nous ngi rendez-vous. à tout le monde dinañ ko def Eldasi incha allah wa taala dinañu mobiliser te incha allah ñu ni mobiliser ñun suñu ay militant lañ duñ jëli ko ci bokkul du ñu jox xaalis kenn du ñu neexal kenn suñu militant yi boppul la ñuy jël parce que ñun ñi ku ci nekk ci ñun ñi jàpp naa ne la nekk sa ginnaaw maanaam responsable nga sa militant yi nekk sa ginnaaw kenn kenn ku ci nekk mën nga feesal el dasi donc ñu ngi joxe rendez-vous à son excellence président Macky Sall euh, incha allah au mois de février du ñu wax date bi mais au mois de février incha allah wa taala non non responsable yi seen bopp lañ fi nekkal nekkaluñ fi président de la république bu fekkoon ni responsable dañ dañ fi nekkal président de la république nekkal fi parti bi kon RMT du juddou RMT bu démé bu juddou c'est parce que dañ leen marginaliser dañ leen écarter écarter boolewul leen ci dara yow ban responsable depuis élection yi ba légui ban responsable nga génn nga gis muy dox ci lo xamanteni bon mi ngi mobiliser militants yi wala ci lo xamanteni instant bi ni mi ngi préparer président wala lo xamanteni c'est en faveur du parti amul. parti bi dafa nekk en léthargie bu amee ñu ciy dox ku néew waa RMT la ñoo fi dox di wax te au moment u ñin ñi nekk ci ay difficultés ñoom instant bi ñu ngi tëdd ci seen i ay saal te mu demoon ba élection ñëw président lu mu yëkkati ci ñoom la koy jox. en général lool su suñ defee di metti yi loolu rek la mais bu fekkonte ni tey ñii sama ginnaaw nii nii nii responsable yi dooleel nañ leen parti bi du demee nii loolu moo waral nag jël na suñu engagement ferme. dinañu xeex ak président Macky Sall ba mu xam ne xeex na ñoom moom te ñun bu génnee ci lii bu génnee ci APR APR Touba amatul loolu moom mooy li wér. xam nga xam waaw xam nga président Abdoulaye Wade daf daan wax ne bu la bu la xale bu la xale tooñee da nga koy da nga koy jéggi boo jëflante ak ay kilifaam en quelque sorte noonu la ko waxee quoi yaa ngi dégg euh, ñooñu mu yónni nous ay missionnaire Nous ñu missionnaires. ñooy ay missionnaire bon en en fait amuñu maturité politique Té, jàpp naa ne du ñëw du ñëw fii di leen tudd parce que di leen may di leen may beus parce que wun non parce que en politique ñom bon il ne signifie absolument rien en tout cas de toute façon ñoom ñi ngi nax Antoine Félix Diome parce que dañuy dem caméra def ay affaire dégganteeg ñoom te li ñuy wax ci kaw bokkul ak li ñuy wax ci suuf voilà lool mooy lool mooy problème bi en tout cas ñi ngi nax Antoine Félix Diome Antoine Félix Diome mi ngi nax président Macky Sall loolu mooy li si am.